chers internautes bu Saloum-Actu xamaat nañ benen beneen yoon jàkkaarloo waat ak yéen ci numéro entretien avec tey entretien avec mu ngi ci diwaanu Jaxaay dalal un jeune dynamique ñu gën tu xam ci Boubacar Traoré l'espoir de la commune de Jaxaay non lañ koy bàkkee waaye été mis le coordonnateur de la plateforme des jeunes de Jaxaay la ñu rose xuusandi ci bile émission dama koy bàyyi mu nuyoo ko ñi koy seetaan à travers Saloum-Actu monsieur Boubacar gina ba ma la nuyoo maa ngi lay bàyyi nga ñi Euh, jërëjëf euh, monsieur Cheikh Tidiane maa ngi nu nuyu euh, di la gërëm di la sant di rafetlu aussi invitation bi di nuyu aussi téléspectateur Saloum Actu ak internet yi suivre yëpp si biir activité yi ngeen di def ñoo ngi leen di sant di gërëm di rafetlu aussi invitation bi. ñun ñoo ko déggandoo le la Boubacar Traoré nuyoo ñu avons l'espoir de la commune de Jaxaay en bref rappel la commune de Jaxaay faisait partie de l'ancienne communauté rurale de Sangalkam créée en 2011 par le décret numéro 2011 427 du 29 mars 2011

weer yu ñu jëm ci incha allah moomee Boubacar Camara ban taxawaay la ci am Boubacar ginnaaw moom a nuyoo sama téléspectateurs yi wala mbokki internetu Saloum Actu yi ana kan lañ mën a wax ni moom mooy Boubacar Camara kuy Boubacar Traoré. <laughs> voilà donc fi nga jeexalee ak laay wax c'est-à-dire xam nga Camara xam nga Traoré moo dàq Camara kon <laughs> jël Camara yi dafa nekk benn jëmm ju ñàkk solo que. d'abord yàlla bon santal dafa ne wàccal leen seen bopp mu yëkkati leen te ñun dañu soso wala dañu yaro si fañu bo xamanteni dañu préfère rester modeste parce que yalla mayewul dafay dénkaane Boubacar Traoré benn jeune le bu ambitieux gëm bopam amul complexe parce que la preuve en est que li may gagné sama aduna ci biir dëkk bi fii laa koy liggéey je suis un jeune entrepreneur tu vois donc et puis je suis reconnu partout dans toute l'étendue du territoire parce que damay politique bokk si ñu njëkk a dugal Macky Sall fii si biir gox bi ah, donc moom naa ne politicien laa comme ni ko gars yi defee sanca ba rafet wër di si bureau yi de gauche à droite mais man gëwma loolu sam bopp laa gëm seul le travail paye kookoy Boubacar travail dégg nañ ne émission bi moom Boubacar Camara mu ngi wax ci entrepreneur la waaye tamit jeune bu gëm boppam la ba tax na askan ci ko l'espoir de la commune mais Boubacar tu vous êtes le coordonnateur de la plateforme des jeunes de Jaxaay est-ce que mënoon nañoo xam lan moo biwu plateforme à l'égard des jeunes ndax ku wax politique wax jeunesse. voilà voilà en réalité. Euh, euh, bi ñu créé plateforme des jeunes pour l'émergence de la commune de Jaxaay parce que gëm nañ ne àdduna lépp loo si sos rek te mu nekk wàllum liggéey développement il faut que ndaw ñi am ci présence bu am solo mhm. loo mënti def aduna parce que la preuve en est que le président de la république Macky Sall son excellence mhm. bu ngeen xoolee commencé na jël jeunesse jox leen ay postes de responsabilité looloo tax ñu ne ñun suñu commune pour ñu développer il faut ñu jël ndaw ñi jiital leen sa kanam mhm. ndaw ñi nag boo leen jiitalee. Nous da fay am matchs, ñoo seen xam-xam day day force côté am seen côté bi plateforme des jeunes pour l'émergence. Nous li ñu de la commune de parce que nous kuy way day fekk créer kuréel bu nekk fi créer euh, dans les jours à venir nous créer ay commission pour nous euh, nous def par rapport à suñu programme de campagne

parce que le président de la République m'a dit une décision Mais chaque année il injecter injecté 150 milliards pour les jeunes répartition de nii c'est-à-dire au total ça euh, enveloppe c'est 450 milliards mais dans cette chaque année nous def 150 milliards chaque année maintenant 150 milliards répartition de 1000 et dans les 45 départements j'aurais même dit que dans sur les 46 départements parce que Kermassar sera bientôt érigé en département. Maintenant, sur les 46 départements, chaque département a fait un enveloppe. Maintenant, le département Bounek, les communes ont constitué le département. Maintenant, enveloppe Bounek, répartition de la ici, c'est commune. Mhm. Donc, en ce qui me concerne, en tant que le coordinateur, moi, je sensibiliser les jeunes mhm. à ce que vous oubliez plateforme, qu'elle ne connaît que des bindu d'ici, nous avons des

vraiment bu demu don tay dootul ne du tey bi monsieur le maire. parce que wa joo xamantene lim ndékkee bokk la ci midi xamul. c'est vrai que pal yàlla moo yor mais des fois ñun ñëpp commune commune bi reconnaître dañu def erreur. gis nga l'actuel maire que nous avons dama leen jox ben exclusivité pour Saloum Actu gis nga euh terrain municipalité bi nga xam dañ ko délibéré. Mhm. mu nekkoon 5 hectares tay jii bo 3 hectares mo fa dess loolu nous tax un appel à tous les codes de compte à que ñu ñeu auditer la mairie de Jaxaay mhm. c'est très important ben di moy ñu ñëpp xam ngeen né insécurité bi likoy manque d'éclairage public mhm. nous avons un commissariat de police qui est là de passage mais nuyu le commissaire Ndom buy liggéey lu am solo mais il faut que aussi au niveau du ministère de, l'Intérieur, nous les éléments. Parce que nous avons un commissariat pour il faut que les éléments soient les moyens logistiques. C'est très important. Parce que la commune de commune commune Mais aussi, l'éclairage public amène un problème. Parce que Barki de ça ne fait même pas trois jours. Les agresseurs, c'est de Si vous avez un portable, dem nañ boobu am na si ay côté yoo xam ne fii neen léegi kenn du fa jaarati parce que ku fa jaar agression bi parce que dafa lëndëm insécurité bi li ko gën a provoqué mooy c'est la mairie parce que amuñu éclairage public mhm. waaw donc en ce qui concerne les de l'ordre ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan mais nañ leen renforcer waat si en terme de moyens logistiques Chers fidèles internautes vous salue actuellement. di leen fàttali ni ba tey ñu ci diwaanu toog ak le coordonnateur de la plateforme des jeunes bu Jaxaay di Boubacar Traoré indi na tamit ay éclaircissement yu ci mel l'insécurité bi lu ko waral waaye tamit euh, mu ngi addu ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci ni liggéey biñ ci war exactly. liggéey exact li des na waaye tamit euh, Boubacar Traoré ana yow lan nga defal Jaxaay ba tax nga taxaw di réclamer mairie Jaxaay ndax mën nañ ko xam bon c'est vrai que la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrab Daaru Cubb lu ma leen defal rek xam ko euh, en 2014 j'étais candidat aux élections locales sur les sept listes que nous avions moi je suis sorti en troisième position avec quatre conseils municipaux Comme mhm. ça veut dire que am na loo xamante jéemoon naa ko si te am na xam yoo xam ne ñoo naroon gagné mais xam nga yàlla borom santa lu mu noddul rek noddu ko. Mm-hmm. parce que ñun erreur bi ñu defoon mooy amu neen mbooloo trop mais ñu si bëri dañoo def transfert lieu de vote. Mm-hmm. mais jotum ko def loolu ñu xool si mm-hmm. li ma def si biir commune bi bëri na c'est suñu aada dañoo baaxool di def di wax mais c'est très important. man dama di nekk si te bëggumay def dara di ko wax. mais wallahi c'est pas pour rien que ni si ëpp si ndaw ni wala ñi si ëpp si jigéen ni wala mag ni ñu yow leen wóolu li ma ko may nak moy dama bëgg sama main droite bi lu mu def sama main gauche bi bañ ko yëg lool xam adam ñun parce que defal doom Arab diko wax wala def ay dar si bi dëkk bi diko wax lool bu déwé day ne nit day vanté mais def n'a ci dëkk bi fi ku fi def rek man nga fekk ku fi def fekk nga man def na ba pare. Mhm. dañuy fal jox ne benn kaña kaña bu génnee si kàmb gi kaña bu génn dañ na benn génn waaye kaña gi njëkk a génn mooy kaña la. Mhm. nit ñaa ngi def nag waaye ku fi def rek fekk nga ne def naa ba pare en 2014 daa lay wax. Mhm. Macky Sall ñoo ko fal en 2012. 2012 bu Macky Sall joxe fii nii dama ne bu Macky Sall joxe woon fii ñaari junni pour restauration maa génn sama xaalis def ko si complété ko 2012 boobu Macky falagul. kon tey bu ñu toogee ba léegi may defal askan wi 2012 2013 2014 ba ñu toll tey 2021 saa yi def naa te aw ma benn poste de responsabilité li ma ko may rek mooy samay liggéey man dóorkat waar laa business damay dóor waar rek man lépp lu légal rek si laa nekk waaw si lu légal du ma si dox mais lu légal rek si lay dox moo liggéey pare nga fay ma ba ma fay nag maa moom suma xaas ma neex ma jàppale ko na ko dégg nañ li nga xamante ni moom la indi ci ay leeral ci wàllu woowee waaye question d'actualité la muy la départementalisation de Kër Massar Jaxaay s'attend à quoi ndax am na parti bi nga xamante ni nangu nañ waaye tamit beneen wàll gee ñee bañ nañ ana lan mooy expliquer mbir moomu la. non xam nga en réalité ñi nga xamante dañoo bañ xam dañoo comprendre en réalité luy départementalisation de Kër Massar mm-hmm. parce que si wàllum élèves yi bu ma sañoon dama ne dañoo jugee rang cinquième position de la première parce que commune de Jaxaay présentement au moment où je parle moo ngi département de rifisque. Le département de rifisque, douze collectivités territoriales Nous ñu xawoon fa ñàkk solo lool parce que nag li may fal jox nu la auditeurs nan la lay awalee ki ñu jiite si commune bi bu demoon département de Kër département de Rufisque am fa taxaw bu am solo dañuy jox gëdd ga mhm. mais amu ko maintenant commune lañ nekk ñu ne ñu dañ leen di jëlee Rufisque yóbbu leen département de Kër Massar bu bees yi mhm. mais non seulement da ngeen fay dem ba pare da ngeen di gàdde commune mais aussi da ngeen nekk arrondissement mhm. tey ni bo soxlon ben papier bo xamanteni ya encore outil sous préfecture bu sangal kam mhm. di nga jël auto def presque 15 km wala nga def 12 km pour nga egg sangal kam wa tay ji bu fekke ñun suñu commune bi dañu wara am sous préfecture bu nekk fii nii loolu avantage mhm. c'est très important parce que dañu nekk arrondissement la ñu nekk lay parce que nouveau départementalisation de Kër Massar trois arrondissements la am benn bi jaxay la arrondissement de jaxay arrondissement de Kermassar arrondissement de Yëmbal c'est pas entre yëmbal nord wala yëmbal sud mais si ñaar yooyu si benn yëmbal parce que département yi trois arrondissement lay am kon loolu avancement la maintenant nag ñi nga xamante nii dañ ne non non parce que dafa am maire bi l' actuel maire bi fam dëkk découpage dañ ko yóbbu léegi Tivaouane Peulh léegi mom bu féké né légui le président de la république signé un décret bi mom su boba dootul nekati candidat c'est fini pour moi parce que bala nga nek candidat day fekk yow ngay nga bok ci commune boobu noonu mais géographiquement parlant d'autres beaucoup de commune bi moo tax mu ne askan wi jug leen yuuxu jug leen ñu leen bëgg andal ni nii baaxul dañuy dindi seen commune fi la xari jaar jéem a jaxase askan wi. kon daal mën nañ jàpp ni moom mii di actuel maire bi moom moo waaxu wàllu woowee ñu bañ. mais moom moom moom moo askan wi ñenn ñi ñu comprendre ne leen bañ leen. Mhm. am na xam des fois jox leen information et puis pire que ça mooy l' actuel maire man joxlu askan wi cër quoi. Mhm. ñu tabaski.

l'autorité étatique pour montrer que la population est en phase avec le maire parce que ce que nous avons ne leen kaa leen jël ay ceeb ndimbal askan un maintenant bu nous journaliste ah, la population est avec le maire en réalité image bi nga de la maire ah, ah, au niveau national ak image bi am communal parce que commune bi mais moom bëgg na caméra bu ñëwee mu ne ah monsieur le président Macky Sall bi ngay def gars yi àndoon si gis nga population baa ngi nii wuyu si na. moo tax population bi laa bëgg ñu yeewu gis nga ceeb ceeb bi muy andi moom d' abord ceeb bi muy joxe baaxul ceeb bi. xuur na yàgg na. dama ne ñun ñi ban juddoo ba léegi ñoo ngi lekk ceeb bu ñu joxee ceeb am nañ bu ñu joxul ceeb am nañ kon nan nañ ñuy seen kër te yàlla tax parce que dimbal doomu aadama jarul nit ki nga weer ko sa mbedd ma. taw la ko suba ngoon ngir jox ko ceeb loolu gor moomu ko garmi moomu l'espoir de la commune de Djahaï lañ toogal nii ba ci plateau entretien avec Moudi di Boubacar Traoré le coordinateur de la plateforme des jeunes bu Djahaï indi na ay éclaircissement ci luñ ko doon xaar ci yenn yi waaye tamit taxaw na joxoñ baraamu tuuma maire bi nga xamante ni moom moo faree ci diwaan bu Djahaï di leen xamal ni actuellement la départementalisation de Kër Massar benn wàll gi nga xamante ne nii nee nañ waaw pare nañ pour ànd ak moom dem fële ca Kër pour nangu it li nga xamante ni moom mooy départementalisation bu diwaan bu Wah ma sax way neena benen ga ca des dañu ànd ak maire bi ngir rek lank ba teud ci souf waaye mom mii di Boubacar Camara di ndaw bu ci APR te ñu ngi jëm ci élection locale yi ana ban taxaway ak ban jangat nga am ci élection yi nga xamanteni ñu ci jëm ci diwaan bu jaxay lan nga ci nam voilà donc élection yi dañ ñaan yalla yalla yalla may fekke ka d'abord. Mhm. parce que bala nga ne xam nga ñun sosowuñ ne kaa leen fal ma mhm. kaa ñu fal la la nit ki di ñaan yàlla mais kaa leen fal ma yaay forcé nit ñi sa bopp mhm. mais nit ñi ñu oo ne la kaa ñu fal la loolu kenn ku nekk loolu lay ñaan mhm. benn bi mooy incha allah en 2014 dafa am ñu bëri ñu defoon benn groupe ñëw ne dañoo bëgg nga nekk suñu candidat bi ñu ko defee aussi jéppuwul ma ma doxal mu set wecc yàlla def ñu jaxaay 1 maa gagné bureau de vote yep ñu dem cité gendarme ma jël deuxième jaxaay 2 ma jël deuxième kon nag bu ñu en 2014 en 2000 euh, je dirais en le 20 le 23 janvier 2022 du ma soto proclamé ne man je serai candidat parce que tout simplement su ma nekkee ay nit nawlem leen fonk leen du sen cadre mhm. dama leen di bay ñun ñu tok waxtaan réunion xool li gën si askan wi def ko su ma nee nekkal candidat ma nekk seen candidat bu fekkee nee nañ ma kat toppal si ginnaaw diw ma topp seen ginnaaw parce que man dama fas yéene nekk jàmmu askan wi mhm. voilà kaddu gum tëjee mom moy fas yéene nekk jaamu askan wi loolee li nga xamante ni la Boubacar Traoré tëjee ay kàddoom moy Boubacar Traoré dañoo seetlu les trois facteurs fondamentaux yi nga xamante ni ñoy yoré yore askan ñoom ñoo yore àddina wax muy l'éducation éducation la santé et l'économie ndax askanu jaxay am nañ taxaw seetlu ci ñetti mbir yoyé wala daf fé soxé dëggantaan. daf fé soxé parce que tout simplement ah, en ce qui concerne l' -hmm. C'est vrai qu'au niveau de la mairie, euh, euh, je connais une certaine Madame Koulibaly que je respecte beaucoup, mhm. moi suis présidente de la commission éducation. Je suis débrouillé je suis bu baax a baax mais éducation commune de Jaxaay dafa soxe parce que bëri na si je jeunes filles yoo xamante en jotuñu continuer seen parce que preuve manque de moyens. Et mairie yi dafa am l'on xamante ne ko parce que domaine de est transféré je j'ai l'habitude de dire que c'est pas pour rien que état transférer les domaines de compétences, parce que nous l'état a transféré neuf domaines de compétences aux collectivités territoriales donc l'État, dafa war donc mairie bi dafa war am taxawaay am solo si l'éducation éducation ñoom nag ñu bëri dañu éducation école la rek formation professionnelle te li si ëpp mairie bi la ko war a subventionné tey jii nii nañ xool suñu xale yi nga xamante ne amuñu possibilité dañ kon ne seen njàng mais mairie war na teg benn budget boo xamante ne dañ leen di war a subventionné ku war a def formation en euh, couture coiffure styliste n'importe quelle euh, formation mairie bi accompagné la parce que en fin de compte da ngay xool une jeune fille boo xamante ne bu demee ba nga xam mënatul jàng wala mënatul fay mu bàyyi toog kër ga te bu fekkee dafa war nekk askan bi nekk ay parents génération de Koundé l'espoir de la commune de Jaxaay moomee Boubacar Traoré indi na ay leeral ci yenn question yi nga xamante ni ñu ngi ko ko doon posé waaye tamit dégg nañ li nga xamante ni mu ngi koy jooylu bu baax a baax te mu ngi tàllal tamit askan wi faree ci diwaan bu Jaxaay mu ngi tàllal loxo jeunes yi nga xamante ni ñoo faree fii pour ñu ñëw ànd ak moom ci liggéey bi ànd ak moom tamit ci li nga xamante nii ci moom la ñu jëm muy élection locale yi pour rekk mu liggéeyal jaxaay loolu la wax ay kàddoom la moomee di Boubacar Traoré kàddu gu mujj gi lal la. kàddu gu mujj bi d'abord damay gërëm askanu jaxaay lool. Hmm. di gërëm waa cité gendarmerie lool. Hmm. di gërëm waa Parcelles Assainies di leen wax ne.

de la commune de Diakhaye plus particulièrement 100 pour 100 pour Ben Diakhaye groupe WhatsApp la boo xamante ne dafa am ay nit ñu am solo ñu si bokk nit ñoo xamante ne tey bu ñu dëggalee seen bopp kenn du décider dara si commune bi te ooyoo leen li leen koy may nag mooy ñuy fekkee di wax di jëf yor seen groupe yor seen carte su boobaa commune kuy décider dara par force la nga leen di oo commune bu ñu ko bàyyi ma la ma dem ba tey xoolal ñu nekk sa mairie ba xëyun gontun ay oto yu rafet la ñuy dawal jaay nañ terrain dëkk bi yépp te xëyun gontun mais doomu dëkk bi nag dañ leen di bàyyi mu continuer ba kañ. Mm-hmm. moo tax dama leen di lancer un appel ñu yeewu bëgg seen gox taxawal seen gox di leen gërëm Saloum-Actu maa ngi leen di gërëm bu baax a baax mm-hmm. di rafetlu aussi xam ne dara xëyul sotti nii la de télévision yu bëri yu am tur si réew mi ndànk-ndànk leen commencé. voilà donc ñu ñaan yàlla yàlla nañ ko defaatee émission yi bëree bëri maa ngi leen di gërëm di leen sant Cheikh les internautes bu Saloum Actu li lañ leen indi loon ci entretien avec waaye di amaat mbégte beneen yoon ànd ak suñu sponsor leader muy groupe uso interbusiness école de formation la di former ay garde du corps garde rapproché waaye tamit ci wàllum entreprise entre autres lépp loo ci bëgg rek numéro bi dina daw ci baaw écran bi boo wootee foofu di nga ci am ay renseignements yu leer di sant bu baax équipe bi ma àndal Pape Maïssa Diop Cheikh Tidiane Seck ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci wàllum technique bi à la prochaine inchallah Thank you.